Macky nag li mu def mooy. Mhm. rawal na njabootam rawal soxnam rawal boppam ne leen yéen nag toog leen ci dëkk bi ku génnul woon ba léegi dootoo génn. <laughs> dootoo génn ci moom <laughs> alors Daouda euh, nu euh, waxtaanee beneen actualité muy euh, alliance bi nga xam ni moom moo moom moo juddu bees alliance boobu duppee seen bopp alliance. Euh, pour pour pour pour des élections libres maanaam élection législative yi ci boobu alliance nu gis ci ay leaders yu bëri euh, Thierno Bocoum nu jiite li nga xam nag moo di agir mi ngi mi ngi ci biir euh, Amadou Ba nouvelle responsabilité mi ngi ci biir Bougane Gueye Dany gëm sa bopp mi ngi mi ngi mi ngi ci biir aussi ay Aïssata Tall Sall Osez Avenir mi ngi ci biir xalifa Ababacar Sall mi ngi ci biir ak parti politique yoo xam ni yu bëri la Aly Ngouille Ndiaye Omar Sarr ñu ci bëri daal ñu ngi si des des élections en tey jii nan nga mën jàngate bi les alliance aussi. dañoo jóg pour politique wala pour élection yi leer. ah ñaar yëpp nañ si def en tout cas alliance moom loolu tudd alliance pour la transparence des élections mais wàllum politique aussi mi ngi ci biir. donc lu may xool di de. damaa xam ne damaa xam ne équipe bu am EDR ak ñeneen moom. fexe mhm. doy caaxaan. Mhm. yow boo fekkee fii réel. Mhm. nga de nga ne da ngaa dem jëli ji FC eh, eh, Caen ñu jàkkaarloo kuy gagné. Mhm. mais mais mais mais alliance bi plus de cinq cinquante partis politiques ñu ngi ci biir. bi ñu dem élection aar ñaata nit a fa nekkoon. Mhm. aar Sénégal ñaata nit a fa nekk. Mhm. yow laa laaj. aar Sénégal bëriwutoon de. waaw kay léegi waxam limal ñu lim <laughs> waa limal ñu nekk ci alliance bi. ñu nekk ci alliance bi. waaw Amadou Ba nouvelle nouvelle responsabilité mi ngi ci. Amadou Ba. élection la dem. Mhm. gañewul bureau am. Mhm. ba gañewul commune am gañewul département am. Mhm. xaalis moo ko boole politique ku ànd ak moom politique a tax ma ànd ak moom limal. Bougane Gueye Dany mu ngi ci biir. enfin pour la première fois Bougane dem na Thierno Bocoum mi ngi si biir. Bougane lan la représenté. non liste bi rek nañu génne mais kenn waxagul. Euh, li Bougane laa la politique. ah ok lu muy représenté. ñan ñoo koy votel ay otom. <laughs> militant wu Bougane oto yi la lan la Bougane di représenter politiquement ay emploi yi duñ ko lima li na Thierno Bocoum euh, Khalifa Abacar Sall mu ngi ci biir Thierno Bocoum bu jaawalee ay amee tik ay amee kër uh-huh. capoté leen laay Facebook bu ko jaawalee ak capoté live biir urne uh-huh. il se bu demoon na aar uh-huh. kan moo fa jaawal ñaata responsable la fa nekkoon lu jaaree plus forest bu jaa bu jaawalee amee wala laay ku Facebook. ak ah. urne yi nga xam ne. nga xam ne loolu ak kanaat. Pape Diop gis-gis boo ko gis-gis. ma ngi démb politiquement c'est fini. Mhm. la Pape Diop lu mu ànd xanaa. Thierno Alassane Sall mu ngi ci biir Khalifa Abacar Sall aussi. Thierno Alassane Sall pour mu doon naa député day def loolu daa xam nga si nar am sens. Hmm. mooy ki nga xam ne mooy nekk si kaw a kaw. peut-être ñu jaar plus fort euh, res kan Khalifa kan nga aussi mi ngi ci biir. Khalifa Sall taxawu Sénégal waaw. Hmm. yàlla baax na yàlla leen yàlla jàppale. Omar Sarr non kan Omar Sarr. en fait yow yow dag maa waxul koo xam ne méngoog naa xale yi ah maanaam en fait doy caaxaan du dara de. Mm-hmm. du dara awma benn problème ak ñoom. Mm-hmm. yow nag xam xamuñu lan lan la may nduru fi ñu toll nii. Mm-hmm. xam lan la may nduru fi ñu toll nii ñoo ñooñu parti boobu xam lan laa ko jàppee. benn Ibra italien bu ne day doxaan Fatou Ndiaye bu TikTok day nangu. yow askan wi xale yi dina ñëw di ànd ak ay mag magi démb ñuy takk ay bretelles sa waxe politiquement c'est fini. Mm-hmm. ñii doy caaxaan mën nañ def seen intercoalition buñ bële buñ bëggee. Mm-hmm. nañ dem jël ji Joe Joe Biden nañ dem jël ji Trump ak keneen boole si. Mm-hmm. peut-être bu ñuy wax wax ji dina indi reereelu xam nga lu tax. politiquement c'est fini kenn ki si naroon am sens dafa mujj dugg si saaku ya. mooy benn Bougane Gueye Dany mooy benn Thierno Bocoum muyewul mayoom. ñaar ñooñu ñoo ci am sens mais ñeneen ñëpp politiquement c'est fini. Uh-huh. Amadou Ba politique moo ko Amadou Ba xaalis moo ko boole politique. Uh-huh. Bougane ay militant am ay otom la. nga ne ñooñu nag sincèrement dañoo bëgg a gañe ñii. Uh-huh. ñii ñi leen di gañe mooy kii jóge ci ñoom. te li ñu déggee defuñu ko. jërëjëf Daouda Daouda balaa balaa balaa ma bàyyi dafa am benn vidéo bu ma bëgg nga nga nga ma ko. boo xoolee écran retour bi bijou dina la ko dina la ko may nga jàngatal ma vidéo bi nan nga ko gisee ndax vidéo bi ñu euh, ngi si soo ko jot muy vidéo bi bi dan nga ko mën jàngatee daaw dan nga ma mën jàngatalee bi les vidéo kii kan la Farba. Mhm. daa mel ni dëkkam la de. waaw mu toog di baatare carte yi gis nga grand place bi mu nekk après dissolution assemblée nationale. après lii dafa am waykat ba lu mu doon wax. ñoo doon toog di naan ataaya buur yàlla wërsëgal ñu nga fàtte ñu nga dem waaye bi nga demee ba ataaya ba jeex nga hmm. ñëwaat fa nga nekkoon far ba de politiquement moo tax muy def nii xam nga lan lay war fi ñu toll nii heure ko waree woo ba ba war ko jàpp si. Hmm. sincèrement dooy caaxaan li ma lay wax ni bàyyi si xel. Hmm. far ba ñii toog ak moom. nañ ma wax kañ li gëj a toog ak Farba. ñoo doon toog di naan doog ataaya. bi ko yàlla wërsëgalee nag mu fàttali leen. Mhm. mais comme atta comme fi ñu toll nii la ko yàlla wërsëgaloon jeex na day ñëwaat. Mhm. day def retour au mhm. mais lii yëpp leen la si bëgg protection. protection bi mooy bis bu ñu waree lijjanti seen mbir. bis bu ñu la waree woo am nga ñu la protéger sa dëkk. nguuru ki Sall xaw ma kañ la far bëgg jon toogee ñii ne day kàtt ak ñoom. waaye nag comme yàlla wërsëgalatu ko day ñëw toog ak ataaya ñëw na baa jaaxle dem na baa jaaxle ba suba jàmm. jërëjëf Daouda merci beaucoup euh, mbégte la woon ma bokk ak yow bi la jotaay. en tout cas jërëjëf. Mhm. maa ngi lay maa ngi lay fay di la sant bu baax a baax di jéggalu